salaamaaleykum waa Actu Thiès maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen déwénatal ci weer wu sell yu ñu jóge muy weeru shahru ramadan euh, di ci nuyu waa Thiès di leen déwénatal di leen baalu àq di leen baal àq di wax euh, lépp lu ñu fi jàmm yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul ci ay baax baax lépp lu nga xam ne ay rëccu rëccu la yàlla na ko sunu boroom euh, raxasal ba mu set wecc di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax ci sama biir kër waaw jërëjëf euh, Omar di wax ne par rapport à cet question dafa fekkoon boobu ba tey bu ñu jógee élection jusqu'à présent ñoo ngi doon wàcc sax def benn rencontre bu mag pour def benn évaluation par rapport à nos activités ndax ñun fii nii au niveau de dixième carrière escale euh, politique nekkul rek ay période électorale lañ ko def mais c'est jusqu'à présent une machine huilée ba nga xam ne day continuer di fonctionner on a même créé un groupe WhatsApp ba nga xam ne ci la ñuy partager certaines informations quand quelque quand un membre du groupe am na jafe-jafe wala mu am xew-xew muy bànneex wala muy naqar on partage l'information dem seeti ko tout ça c'est pour euh, retenir jusqu'à présent le noyau dur ñuy demalante di dikkalante mu nekk quelque chose ba nga xam ne dañuy assurer la pérennité mais pas ñu yemale ko rek ci wàllu élection ñu liggéey fi nag liggéey bu am solo jaareele ko ci wàllu formation surtout des femmes avec euh, trois FPT au niveau du du foyer de la femme liggéey fi liggéey bu rafet jàppale ci jigéen ñi ñuy dem ak dikk jusqu'à présent ñoo ngi ci ànd di ci jàppalante xëy na nag euh, moyens yi moo xaw a des ak financement yeeg yooyu mais nekk na liggéey ba nga xam ne tey jii nii ici ci Thiès am nañ ci résultat bu satisfaisant bu dal xel bu baax a baax macha allah. alors très bien bu wax ci wàllu euh, formation yooyu parce que politique développement boo koy wax fa nga wax financement wax ay formation surtout ci jigéen ñi ak taw ñi lëkkaloo woon ak bi ngeen demee ba gis ni tey am na coppite tey ki ko jiite woon 3FPT tàmbali ko mu nekk ministre est ce que yéen jàpp ne liggéey bi mu doon am na solo mais effectivement euh, Omar liggéey boobu njeexital gi tey jii ni moom moo war a tey ko ko jiite woon tey jii dem a euh, dem ci ci ci kaw ñu jëlee ko ci poste directeur ba mu nekkoon ñu tabb ko ministre ndax moom tey boo xoolee dafa demoon ba am une dimension nationale partout dans toute les régions du Sénégal fu nekk dem na fa agir ñun nag fii nii Thiès vraiment sant nañ ci suñu bopp bu baax ndax jàppal nañu bu baax tey jii nii femme yaa ngi ci transformation fruits yaa ngi ci élevage affaire avicole affaire ginaar yi femme yi tey ñoo ngi ci commerce bi ñoo ngi dem di wuti ci ay bagages di dem ak dikk ñun avec nos maigres moyens jusqu'à présent ñoo ngi toppatoo encadrement bi nga xam ne moom la ñu waxante woon ak ñoom. xëy nag bu ñu amee leneen la nga xam ne nekk na appui bu jóge ci kaw jóge ci gouvernement ñoo dina gën a baax ndax tey jii nii lu kenn mën ñaara ko ko ko ko dàq te par rapport à ces financements famille soxla nañu ko bu baax ndax jàngal nit ki xam-xam mu xam pratiquer ba affaire bi commencé huiler ba mu xam ne moom tey jii nii boo ko joxee dërëm nan lay def ba tegaat ci beneen dërëm ba mu jur ñaari dërëm kooku yaakaar naa bu ko jàppale loolu la ñuy wax véritable développement à la base moo tax tey jii nii ki ko yoroon muy Dame Diop vraiment ñu prom ñu promouvoir ko à la parce que tey jii nii bu liggéeyul woon du ko am kon nag ñun jàpp nañu liggéey boobu ñun gis nañ ci suñu baax suñ suñu bopp bu baax a baax a baax et puis nekk nga xam ne tey jii nii moom jëriñu ko ko yoroon moom Dame Diop. également président ñu lëkkaloo ak yow di ànd liggéey ci jigéenu Thiès defoon ngeen fii ab. fii bu rëy bi nga xam ne forum bu rëy bi nga xam ne gisoon nañ ñëpp teewal nañ fa tey toujours rek ci wàllu développement comme ñu ko waxee ci transformation mais jigéen ñi seen kàddu mooy ci wàllu financement tey yow nga xam ne yow bi gën a taxaw ci wàllu di leen gunge yooyu ak euh, ci yëpp orientation nga ciy jox. waaw orientation yi ma yi ma ciy joxe moo di euh, par rapport au financement dafa am toujours benn jaxasoo bu ci am ba xam ne. ñi nga xam ne les véritables acteurs de développement les femmes yi nga xam ne tey yelloo nañ ko le plus souvent duñ ci jot may ñaan euh, son excellence de président de la république beneen yoon nañ fexe ba nga xam ne tey jii nii ñoom ñi nga xam ne ñoom structure yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di indi financement yi nañ ñëw lëkkaloog responsable yi nga xam ne ison ont montré leur preuve te xaaruñu ci kenn avec seen moyen personnel ñu jug di liggéey di jàppale jigéen ñi daanoo ko jug suba ngoon bu ñu amee problème responsable yi leen jege la ñuy gis kon nag ñooñu bu ñu leen approché tey jii nii bu financement ñëwee dinañ ko teg ci loxo yi war bugguñu ci dara ndax ki nga xam ne tey jii nii dafa jël ay moyens boppam di ci def te xaarul état tey jii nii bu état ñëwee dollil ko da koy jël jaatalaat ko au niveau de la base ngir askan wi mun koo jëriñoo mais nag bu fekkee toujours dañuy def affaire pëccoxoo affaire politique vraiment mu nekk benn tapalay wala benn bruit bi fi jaar jàll. kooku dafay nekk la nga xam ne day day du rafet te jigéen ñi développement bañ doon xaar ci ñoom après formation bi day nekk lu day day am gàllankoor yu bëri par rapport ak processus de développement bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ak ñoom. alors euh, très bien teg ko DER mu am budget 30 milliards ak ñu mel ko ni ñu ko à la base nañ ko wàcce à la base wala boobu même buñ ko wàccewul de manière collégiale. bu ñu ñëwatee ci dëkk les archives sont là les journalistes son la les agents de la sont là xool ñi nga xam ne liggéey nañ ci wàllu développement ba am ci ay résultat ba joxe ci ay diplôme ba def def ci lu ne ñoo ñu woo leen ñu indi ñi nga xam ne kat ñoom formé nañ leen ba pare parce que tey jii nii d'accord boo nee DER baax na financement baax na mais financement da nga jox ki nga xam ne formé nañ ko ba pare ci ça problème ñun tey jii nii on a joué un pour l' état moo di lan formation bi nga xam ne état bi waroon na ko assurer femmes yi ñun def nañ ko. kon xaalis boobu financement boobu noonu bu ñëwee dal ci loxo femmes yi du yàqu. mais bu fekkee dañoo ñëw financer ñi nga xam ne tey jii nii defalaguñ la formation xaalis bi day yàqu mais foofu développement du fa mën a am te ñun dañuy assurer li ci gën a am solo ñun ñañ koy jox xam nañ leen et puis ensuite on va assurer le suivi. xool ndax ñoo ngi koy jaaral ku ci jaarul yoon souvent dinañ wàcc di fa def ay descente ah, encadré dina la e yéen ñi ngeen ko doxalee baaxul nii ak nii ak nii en tout cas dañ fexe ba xaalis ba looloo am solo ci financement. Euh, euh, bi nga xamante ne ci seen bopp na ay doom bi ak euh, gis waaw par rapport à à ça euh, damay d'abord féliciter euh, le ministre Tiki Ndiaye Diop ci nomination am ndax euh, depuis booba tey j'avais pas eu fi fu def ko publiquement di remercier itam président de la République ci confiance bi mu accordé aux femmes par la personne de Ndeye Tické jox ko yóbbu ko ci station ministre ba pare yokk ay ay ay ay ay ay ay ay ay compétence am ak ci liggéeyam mu di lan def ko porte parole du gouvernement ndax loolu itam nekkul lu yomb porte parole du gouvernement du du du n'importe qui moo koy nekk porte parole du gouvernement nit la ka nga xam ne responsabilité la ba nga xam ne tey jii nii vraiment bu ñu amul yaakaar ci yow du ñu ko def kon nag loolu ñoo ngi koy jaajëfal moom président de la république mais aussi di féliciter Ndeye Tické di wax ne am nañu yaakaar ci moom ndax euh, cadre bu mag la elle a fait ses liñ koy gën a dolli rek bon te xam naa ne xëy na peut-être que xat-xat yi pour l'instant liggéey bi la mooy vraiment mu def un appel un appel à tous les acteurs politiques ndax tey moom dafa am fu ñu koy séntu elle n'a droit à l'erreur elle n'a pas droit l'échec di ko wax na gën a redynamiser les activités politiques et cela en synergie avec les acteurs politiques yi fi nekkoon ñu fexe ba noyau dur bu ñu amoon dans les temps mu bañoo a éparpillé kooku nag c'est organisation à l'interne xëy na bu ko ma jot a mayee tuuti bu ñuy rapproché wu ak yenn responsable yi fi nekk ñu conseillé ko encadré ko elle pourra travailler avec tout le monde vraiment ba nga xam ne li ñu bëgg fii ci Thiès ah nañ am yaakaar yàlla defal ñu ko bu soobee yàlla loolu nag liggéey bu am solo liggéey bu laaj bu am solo la laaj mais itam dañuy ñaan itam président na ko bu mu yem ci nomination wu Ndeye bu Bouye rek Thiès bëri na ay cadre bëri na ay doomu Thiès yoo xam ne ñoo ngi fi nekk te ison ont le sang APR di ñafee jusqu'à présent découragé wuñu xàddi wuñu bu daggul dikk ñooñu na leen renforcer bu mu xool les résultats des élections ndax fii ville rebel la te ki fi nekk jëkkati ko fi yombul c'est vrai que il faut un certain travail un travail d'harmonie de concertation mais aussi un travail sérieux ndax Omar nu ñu waxante dëgg Thiès dafa bëri ay naxe naxe bi bëri na fi nañ leen bàyyi naxe bi li ñuy def dañ koo gëm mu nekk dëgg ci ñun nañ ci def fulaak fayda man de loolu laa jàpp sinon lu mu mënta nekk fulaak fayda du ci perdre sama temps ndax j'ai d'autres choses à faire politique sacerdoce la loola ca fekk nag da ngay xam ne ne loola ca dab da ngay xam ne lii wërsëg bu yàlla tudd la mais politique sacerdoce la dootoo moo sa bopp tu au service des populations loolu nag bu ñu toogee suñu biir entre personne responsable waxante dëgg yaakaar naa war nañu mën a teg ay stratégie yu ñuy may ndam am nañ ci yaakaar ah yàlla bu yàlla tas yaakaar di encourager encore Ndeye Tické di ko wax ne ko na gën a góorgóorlu mais itam nu moytu fi mu topp topp topp euh, euh, du mu tuuti jigéen ñi rek fàtte góor ñi laa aussi c'est un problème mm-hmm. mais vrai que moom sax xam nañ ne Euh, jigéen ñee gën a def do plaidoyer mais aussi un parti c'est un tout il y a les femmes il y a les jeunes il même les vieux bon na diversifier yaatal ñëpp woo góor ñi ndax góor ñi nag ah ñoom nu ñoo dem les femmes kon nag yaakaar naa bu déggee appel bi incha allahu rabbi dina ko def ah, ñu koy ñaanal yàlla ci fonction yu bees yi yàlla jàppale ko suturaal ko ba li président bi ci moom moo am yàlla mooy ko tam

wala boog bu ñu fa jëlee benn doomu Thiès nañ ko xoolaat beneen doomu Thiès ba nga xam ne dinañ ko fa teg mu mën a assurer liggéey bi. nañu wax ne dëgg parce que tey jii aussi Siré Dia quoi qu'il puisse euh, tey jii nii c'est quelque ki nga xam ne vraiment ay moyens am ñoo ko may li mu am tey jii nii moyen bu fa nekkul dana dana dana doy waar. effectivement ba am base bi mu am. c'est des moyens bu ñu naxantee en politique il faut des moyens on peut avoir de belles idées de belles initiatives des stratégies sous-tendues par des moyens ay moyen moo yor politique ndax def def bu dul jeex la et puis tout le temps les gens viennent vers toi moyen bu fa nekkul ak bu wóor bu ba nga xam ne vraiment day concrétiser stratégie yi ñuy développer du fa du fa mun a am ndax action yooyu moyen moo koy def kon nag bu moyen wàññeeku bu baax day wàññi suñuy résultat day wàññi suñu suñu suñu zone d'influence dans la ville voilà. alors très bien mu nekk lu am solo mais euh, tey bu ñu koy wax tey ñu wax rek euh, wax scandale. ci wàllu pétrole bi mu mel ni am na jafe-jafe ba kenn ci ci seen parti bi Aliou Sall. Mhm. donc tey ñu ko ci ñenn ñi ngeen di ay tuuma li ñu naan lan moo ci seen lecture yéen waa APR. waaw loolu suñu lecture moo di vraiment un appel d'abord man personnellement bi may def un appel au calme et à la sérénité ndax suñu réew bi réewu jàmm la réew la ba nga xamante ne ne àdduna wër ngel képp ñëpp a ko teg bët ndax lan xéewal ji fi yàlla commencé ubbi kon nag bu fekkee dañoo dem ne suut sore guñu ci dara coow li commencé bëri dama naan attention te coow loolu tey jii bu fekkoon tey jii ni sax ay jàmboro ko taal mu mën a wax waaye coow li ay doomu Sénégal yu dëkk fii di fi yeewoo ñoo ko taal kon dama naan c'est ça commence à devenir dangereux ndax ñu ne neen suñu biir ñooy commencé di waxalante di taal daay ba nga xam ne bu tàkkee xamuñ fu mu yegg kon bu ci jàmbur yi multinationaux yooyu borom alal yu duggee dana doy waar je ne veux pas être l'avocat du diable mais mbirum pétrole ak mbirum gaz li li ci président Macky Sall def ngir leeral opinion bi bëri na ITIE moo ko fi indi initiative pour la transparence des industries extractives loolu yëpp ngir warlu saytu nit ñi téye pétrole bi ak gaz bi la cay dugg ak la cay génn fan lañ ko def ak loolu kooku nit ku jubul du ko def am na tamit cos Petrogaz bi nga xam ne doyen Ousmane Ndiaye moo ko jiite bërki Dembo njaay dégg nga mu dina ko yaatal jusqu'au membre de l'opposition kon kooku bëgg na leeral ah ñu jigewaat ci loolu li may wax naan moo li may wax dama naan mbirum pétrole bi ak mbirum gaz bi vraiment dañ ñaan yàlla yàlla sutural ñu ba mu mujj ci jàmm ak salaam ndax dañ ci séntu développement séntuwuñ ci la nga xam ne tey jii nii day nekk wàññeekuwaat nekk musiba ci suñu réew ndax il faut pas complète qu'on qu'on complète le flanc mu di leen ubbi la porte aux étrangers ak à des personnes tapis dans l'ombre parce que tey jii nii Omar politique dafa nekk la nga xam ne lu doy waar la au niveau national comme au niveau international il y a des gens tapis dans l'ombre au Sénégal te tey jii nii bu fekkee ki nga xam ne moo tey jii dafa yoroon pétrole bi ak gaz bi waxoon na li président Macky Sall lim ci liggéey ci leeral ak ci jubal lu lu lu am solo la tey boo ñëkkuwaatee ñëw naan ñoom ñoo def li ñoo def li te ba ñuy def moom mu fekkee loolu day nekk la nga xam ne lu tey xel la mais vrai que nag ils sont là et de posant le rôle d'alerte mais aussi lépp lu ñuy alerter lépp lu ñuy wax ne nekk la nga xam ne c'est base sur des preuves palpables la nga xam ne buñ ko génnee dinañ xam ne kat kii moo def lii wala kii moo juum mais bu loolu amul politique bu révélation man dama koy ŋaññi. révéla te révélation bu jubluwuñ ci lu dul yàqal ki fi nekk lu dul ki fi nekk nañ ko waxal ay ñombe ba dëkk bi boddi ko ñu jëlu ko fi indi ñeneen te ñiñ fi indi xamuñu lan moo nekk seen ginnaaw xamuñ ñan ñoo nekk seen ginnaaw xamuñu yan tànk moo leen tax loolu dama daan attention ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko bokk yéen ko tuxaleen bi ñuy yëgoo nañ fexe ba sunu alal gi nga xam ne yàlla sunu borom jox nañu ko ñuy ñaan yàlla yàlla sàmmal ñu ko ba mu nekk njëriñu Sénégal. alors ngeen euh, di ay doomu Thiès nekk ay Kàngam nekk ay Pape di koy def yëpp domaine ak yu mel tey ñu gis ñu euh, Sénégal nee ñu am ëllëg yoo xamante ne mën boppam ba tax ñëpp gis seen bopp ci développement durable bi ñuy wax bu ñu bañee sax émergence li ñu mel Ousseynou est-ce que tey Thiès mën na cee gis boppam de par sa position géographique. mais bien sûr Thiès est incontournable de par sa position géographique foo mëntu jege Dakar Ndar Touba Saint-Louis te obligé de transiter par Thiès pour dem ci beneen dëkk boo génnee Dakar capitale bi fépp fooy dem ci Sénégal nga jël train express régional nga jël oto nga jël avion tu es de passer par Thiès Thiès présente maintenant des métiers d'avenir yi nga xam ne amul beneen région bu ko fi présenté les métiers aéroportuaires les métiers du fer kon nag tey jii nii ñun war nañu mën a am benn organisation ak benn encadrement ba nga xam ne on doit les jeunes thiessois vers ces métiers d'avenir parce que bu njëkk ba enseignement général la fi nekkoon da ngay génn lycée dem université di jàng jàng jàng boo fa paree mbëkkante ci concours yi xamoo di nga am wala doo am Mais maintenant, avec les jeunes étudiants soir là, ils peuvent dès, dès le bac, voilà même à partir du BFM, être orientés vers les métiers d'avenir. Et les métiers porteurs d'avenir, c'est du palpable. L'ICEP et la installé. nga xam ne da ngay def sa formation automatiquement tu es à l'emploi boo paree xam nga fa nga jëm. te lycée technique. boo déposé emploi gars yi jël la. kon nag loolu ñun tey jii nii chance boobu ñun amuñu ko woon kon xale yi nga xam ne tey jii nii am nañu ko dañ leen orienté jàppale leen sur la bonne information ba nga xam ne dinañ jàngi jàng bu leen di jëriñ et puis des formations courtes et nga xam ne boo gën a automatiquement tu es opérationnel très bien euh, alors euh, mode fast fast bi nga xam ne wax nañ ko ñu bëri le ministre du travail génne na communiqué di wax par rapport aux heures de travail mu mel ni am na lapsus bi nga xamante ne bëri na service yi ñu ngi am service public puisque da ngay dem ci yenn société yi ay yenn heures yi ko fekk wala ñu la dañu euh, nekk pause wala nangam donc mu mel ni fast track bi ñu bëri nañ foofu la war a démarrer. faire évoluer les choses d'une manière rapide tout en tenant des systèmes de contrôle vous allez dans l'administration membre budul horaire bi ñuy ñëw xëy na peut-être que loolu de manière organisationnelle quand l'État veut mettre un terme à ça il mettra un terme nit ñi di teel a xëy mais la manière dont on traite les dossiers administratifs la manière dont on reçoit les demandeurs de service au niveau de l'administration c'est ce qui reste à désirer de telle sorte que le modèle fast track tey jii nii war nañ ko mën a gën a rendre opérationnel au niveau de l' administration bu déposer un dossier de bail Omar ça va faire des années avant ngay jot sa bail vous allez au à l'urbanisme vous déposez un dossier d' de construire ça va faire des mois boo ko fay xaar sa xaalis dañ ko jël utiliser ko ci leneen vous allez au niveau du tribunal vous avez un dossier au niveau du tribunal là da ngay réer sax bureau greffier bi bureau magistrat bi bureau nii côté yi kar la fii c'est-à-dire il faut qu'on simplifie les choses et les procédures de telle sorte que le Sénégalais lambda puisse acquérir aux services administratifs sans fair autant d'efforts. Pour c'est ça le modèle fast track au niveau administratif. Tant loolu mënuñu ko réussir slogan bi moo fi nekk rek wax jee fi nekk mais jusqu'à présent les Sénégalais vivront les même problème

vraiment xamuñu ko à 100 pour cent pour mun ci avancé mais par contre en concernant la personne de Aliou Sall membre de l'APR quelqu'un qui a contribué hein, de par ses efforts à ce que le président soit réélu ñun de manière solidaire vraiment dinañ ko jàppale ci lépp la nga xam ne tuuma la ba nga xam ne dañ koy teg ci kaw deram te visi wuñ ci lenn lu dul yàqal magam wu di président de la république Macky Sall si l'histoire si on peut revisiter un peu l'histoire avant muy nekk dans le gouvernement dañuy wax da liggéey nit la ka nga xam ne consultant la woon nekkoon ci cabinet Timis te Timis nag l'ancien régime ñoo ko fi indi lam fa doon am bu doon ay milliards milliare man jàpp naa ne lam doon liggéey la ci wàll boobu moo tax mu am ko ndax boobu nekk magam nekkagul ci état moom ci boppam duggagul ci gouvernement xëy na après la lii am am ba mu fekk ko fi te après dafa démissionné pour vraiment bañ bañ a tàqal magam ci lenn. je salue aussi l'initiative du président de la République ba mu ne il va ouvrir une information judiciaire auprès du procureur loolu lu ma naw la ndax dina tax xel yi commencé woon doon ñaaw ak nit ñi nga xam ne ñoo ngi doon wax wax du ñu doon yaakaar ne peut-être que du ñu sédd alalu pétrole beeg gaz bi ñooñu ñëpp ñu war leen mën a entendre. ku ci nekk la ngay wax si tu nga teg ko ci table bi et que c'est une une bonne fois yenn yenn yenn désinform désinformation yi ak yenn tuuma yi ñuy teg ci deru doomu aadama te amuñ ci benn firnde jusqu'à présent nous le soutenons et nous allons continuer à le ndax gisaguñu luy tax ñu nekkat kat kii luubal na wala kii jël na alal ya nga xam ne moomu ko te comme il est membre de l'APR nekk fi di fi liggéey liggéey bu am solo ñun dinañ ko jàppale soutenir ko jusqu'au bout. alors euh, unité bi euh, euh, dañuy wax na gars yi parce que il faut aussi dire la vérité mu di leen gars yi dañoo xaw a découragé man loolu la sentir les responsables acteurs politiques yeeg ñëpp a xaw a découragé vu la tournée des choses mais aussi. ñàkk am un leadership ak un noyau dur bu leen encadré bu nekk toujours euh, benn tracteur ba nga xam ne moom mooy tax ba ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi les acteurs politiques yi fi nekkoon dinañ continuer di sawar di def ay activité politique parce que fi ñu toll xam nga bu fekkee da nga yàgg politique nekk ci parti bi amoo ci dara yaakaar ci nag lu bëri am na benn instant sa xol du neex da ngay découragé mais il faut que ñu organiser waat suñu bopp jéem a dundalaat les activités woowaat ñi fi nekkoon ne leen nañ ñëw ndax la politique c'est pas un jour du course moo tax souvent dama ko doon wax nit ñi xam nga bu fekkee dangay jël politique yaakaar na course la tey bu ma ci defee tey jii nii mu sax tey dangay gaaw a mais bu fekkee la nga xam ne yow jàpp nga ne tu travailles pour la cité tu vas pas à pas doo ci dara bo lu la ci fekk nga xam ne lii yàlla moo la ko jagleel en tout cas defaat un appel un appel vers euh, un appel vers l'idéal un appel euh, vraiment pour euh, la reconstruction de Thiès ndax Thiès a un rôle important à jouer dans le plan Sénégal émergent mais malheureusement on semble l'ignorer ñu jugaat xeex wane une autre image de Thiès ba président xam ne ne kat ñii am na lu ñu bëgg doon tey résultat électoral jusqu'à présent ne s'y prête pas mais am na lu ñu bëgg am nañ gëm-gëm loolay tax mu gën ñoo may nopp gën ñoo yokk ay responsabilité gën ñoo jàppale ci wàllu moyen pour li nga xam ne bugg nañ ko def ci biir dëkk ñu mun ko def ndax y a plein de choses à faire ici. kàddu gu mujj gi mooy vraiment di baaluwaat ak ñëpp di defaat un appel au rassemblement di ci jiital Augustin Tine le ministre Augustin Tine directeur du de cabinet du président. di ci woo Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre de l'économie numérique di ci woo tous les responsables politiques appel à un à une redynamisation des activités mais appel pour un seul idéal mu di lan euh, jàppalewaat son excellence le président de la république ngir deuxième mandat bi nii lépp li nga xam ne rëccoon na ko ci premier bi mu mun ko cee am mais itam di ci profito di ci caale kenn ku bokkoon ci ñun façon trop ñu gën koo ràññee ci gi Siggi na muy maam Madiop Sine mi nga xam ne génn na ci weeru genn àdduna ci weeru koor bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suuf sedd ci kawam di ko jaale président Abdoulaye Dièye di ko jaale itam l'ensemble des politiciens thiessois kàddu yi daal Omar loolu la woon di leen jërëjëfal yéen di leen remercier ci seet si bi ngeen ma seer si di wax itam que vraiment daal nañ tàppewaat xol yi jàppante retrouver waat encore autour de l'essentiel moo di lan la victoire de la paire et de la coalition benn Bokk Yaakaar fii ci biir Thiès maa ngi leen di sant merci beaucoup